dañoo lancé won tay caravane bi tey ci ndigalu euh, madame la ministre Mariama Sarr ministre de la fonction publique et du service public ginnaaw bi ñu lancé le forum national bi nga président moom moo ko euh, jiite woon ci xool noonu ci encore ay ponk yu wóor moy manam nañ dem ba tay ji ñu dem ci zéro papier fexé encore ba Sénégalais bi fu mënti nek mu mën am service état bo xamné du ko sonal donc lolu nag pour taxaw na madame madame Mariama dinañ dinañ initier ben caravane service public pour aujourd'hui ñu dem fekki Sénégalais yi fa ñu dem fatik dem Kaolack dem Kaffrine loolu aussi bu ko défé ay offre de service la

boobu sànq boo ñëwee tey incha ci saa si la ko ñu aussi ak le ministère le ministère des finances à travers la direction de la solde bi nga xam ne dafa initié benn plateforme qu'on appelle e-solde pour dimbale tey jii vraiment fonctionnaire fu ñu mënti toll rek nga am sa bulletin nga xool sa portable télécharge ko tey jii kat am nañu mbégte vraiment monsieur le gouverneur tey jii enrôlé nañu ko bindu na tey jii dans son portable mën na cee bulletin am ñu ngi aussi ak euh, lancement supérieur à travers l'office du bac mi ngi ñëw tey vraiment pour bind xale yi ci télédac bi parce que légui boko ko do dem Dakar déposer da nga bind léegi ci ci ben plateforme bu woyé woowee donc xale ba tay bind nañ on est aujourd'hui je crois à plus de 200 étudiants xam tey bind nañ on les a inscrits incha allah ñu ngi à travers ci weer yi di ñëw nu ñu mën organiser ay sessions yo xamné ne day ñëw fii pour jox leen sen sen diplôme au lieu xale di dem ba Dakar di ko fa jëli loolu aussi vraiment dimbal la tay ji encore ak ci kaw am na encore euh, ay médecins yu and ak ñun pour xol pour saytu wergu yaramu fonctionnaire pour ñu ko góor rek parce que nit aussi balaa ngaa liggéey da ngaa wér donc vraiment tey yooyu yëpp ñu ngi fii ànd ak ñoom. ndigal bi président de la république joxe woon début août 2019 ne dafa bëgg administration ñu gën ko yeesal gën ko beesal gën ko àndale mu méngoo ak jamono parce que nag jamono léegi ak xarale yu bees yi dafa laaj administration ci ay ci ni muy doxee. administration ci këyit yi mu war a jox usager yi ñu méngale ko ak jamono ba nga xam ne nii da war nga mën a toog fii Kaolack bës ab bouton mu jox la dossier bu nga xam ne nii da nga doon paas dugg oto dem ba dakaar di rang ci ay bureau pour mën a am dossier boobu léegi mën nga ci sa portable nga téye sa portable am ay mot de passe ñu la jox nga bës ci sa bouton léegi nga am sa sa bulletin at mi wala nga am sa bulletin weer wi mieux man nga sax bulletin moom nga tiré ko légui dem ci banque bi su féké da ngay def prêt wala da ngay def lén nga présenter lén ko alors que bu njëkk da nga don paas fii dem ba Dakar di rang ci bureau yi pour am loolu je crois que wane né ne euh, programme d'appui bobu à la modernisation de l'administration mu ngi dox bu baax ñu ci profité nak pour vraiment remercier féliciter madame la ministre de la fonction publique ci doxal bobu nga xamné doxal nako and ko administration territoriale

ma ma def sama mot de passe sama mot de passe yi nga xam man rek mako xam léegi ma génn sama bulletin man na sax dem tirer sama bulletin man na xam sama avancement yëpp man na ko xam grâce application bi ñu wax e sol je crois que lu am solo la ñu rax ci dolli nak aussi tey euh, fonction publique xam nga dafa am aussi cœur euh, docteur cœur docteur bu nga xam moy mooy toppatoo euh, wér yaramu agent yi parce que nak nit ki boo ko de aussi da ngay sam wér état bi xam ba amna que docteur bu nga xam yaramu kuy ci administration di consulter euh, fonctionnaire di consulter agent de l'état yi lu jëm ci diabète lu jëm ci hypertension yooyu ñi koy def pour woné